ngeen may ma journaliste yi point de presse la waaye ma sant xarit yi nga xam ne dañoo jóge fu sori ak fu jege sori na ba Kaolack sori na ba Saraya ba Tamba ba Vélingara ba Ziguinchor ba Matam Bakel ak sama mbokk yi nga xam ne nag ñooy waa Grand Yoff te ñoom it ñu nekk yi waa Ndar te ñoom ñëpp dañu dégg rek information bi daal di ñëw témoigner waa Guinguinéo aussi Gossas ak fu pour indi seen jàppale seen soutien seen xaritoo ak seen wëllëre yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant ak ñëpp waa Touba tout waaye di sant surtout aussi waa Kébémer waaw te Sidi Bara it wax ci seen tur mën naa wax ne ak aussi waa Tivaouane Diacksao ak waa Podor ak ñëpp daal. ñu commencer par euh, remercier les journalistes parce que yéen ay yor xarale information xam naa ne nag dinaa jël temps tuuti ci expliquer ndax message dafa baax bu ko defee citoyen yépp am information bi nga xam ne mooy information bi am ngeen may ma nag. ma dellusi ci ay événement euh, maanaam euh, à propos présidence de la quatorzième législature mooy assemblée bi nga xam ne moom la ñu installé le douze li tax ma bëgg cee dellu si dama ci dégg yoo xam ne yi méngoowul ak li am jëluma ko nag pour werante dama ko jël pour rétablir lu tubaab naan rétablir les faits waaye nag sax balaa ma cee dugg damaa bëgg gërëm ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon nag di campagne wax dëgg yàlla membre délégation bi responsable politique yi ci bokkoon ma ànd ak ñoom wër réew mi bokk na si ñi doon dawal chauffeur yi ak sécurité bi ne chauffeur nag dinaa tudd Biglège nag moom yàgg na ma dawalal waaye ak sécurité bi yëpp mais remercier aussi population yi ak responsable yi nga xam ne ñoo ñu teeru te ñu ci bëri mu bokk ak ñoom tey assemblée nationale doonoon na nag lu metti xëy na li ngeen gis photo yi ñuy siiñ ak yu ni mel euh, waaye nag lu méttee métti la woon ci juróom benn fan ah ci naaju nawet kuy baykat xam nga ne naaju tàng la ci taw ak ci xiif voilà bëccëg yi gudd lool guddi yi gàtt lool waaye alhamdulilah rabbil alamina bu ñu la joxee mission da nga ciy def sa kemtulaay kàttan def ci sa jom bu mettee it nga siiñ rek muñ yenn saa yi siiñ bi gàññ lay doon sax waaye nga fexe rek ba def ci sa jom ba am ndam yéen nag journaliste yi en dix ans depuis 2012 defe naa ni ma toog ak yéen jàkkaarloo nii bari lool defe naa waaye defe naa ne mosu leen ma dégg ma wax sama diggante ak président Macky Sall mëstar waaye nag day tollu jamono joo xam ne leeral dafay am solo président Macky Sall nag ma wax leen ne man la ma ko wax yëpp du ci dindi dara ci wàllu bilan ndax dama cee teg sama bët man du kuy ku du kuy wax ëlbateku wax leneen waaye nag fokk ma wax leen li nga xam ne moo jot a xew li ma leen bëgg a wax mooy defe naa ne Sidi Ba wax na ko yàgg naa ci politique ba may am 32 ans le candidat présidentiel boo xam ne troisième la jël ci élection boobu la ma ràññee confié directoire de campagne boobu fanweeri la am ak ñaar kon ma ñëwee ba toll fii ba am sëñ. kon maa ngi bëgg a yàgg ci politique doon ci nag aussi responsable bu am expérience kon bu may toog di waxtaan ak président de la république président Benno Bokk Yaakaar mu jox ma parrainage parrainage boobu nag ma sant ci aussi ñu mel ni équipe bu ñoom Pape Mayel Thiam toog nañ ca seen permanence boobu presque ba trois heures quatre heures du matin pendant plus de deux mois day responsable bu ñëwul seet si ma foofu ma def loolu ëlbatiku wër Sénégal booba dafa fekk ma waxtaan ak président Macky Sall am accord ak moom sur la présidence de l'Assemblée nationale. man néew ci politique néew ci politique du ci apprenti te ku ci am fula laa la man kenn du ma toog maanaam ba dernier moment nga naan indil sa këyit loolu amul li am li am mooy dañoo discuter li ñu waroon a discuter ñu am un accord ferme sur la présidence de l'Assemblée nationale noonu la ma sa amee d'ailleurs parce que ba mu may nommé conseil économique social et environnemental waxtaan nañ ci ba tënk ko deux mois donc président Macky xam na ne li may wax dëgg la xam na ne loolu moo am. moom waxul dëgg. loolu moo am. s'il vous plaît. s'il vous plaît te duñu dugal sax ay alxuraan ci mbir yi waaye ku tegoon fii kaamil ñu teg ci suñu loxo parce que loolu moo li am nag mooy le 12 septembre bi ñuy bi ñuy installé le bureau de l'Assemblée nationale. 9 h ci suba ci la ma woo yónnee ma message dama ndax ma woo la ma ne ko waaw mu ne ma ma daal seet naa ko ba seet consultation naa waaye damay changer avis diw laay def président de l'Assemblée nationale. 15 minutes avant ñi mu yónni ñëw pour jox information yi député yi loolu mooy am leneen amul. heureusement d'ailleurs ma sant yàlla nekkat jaagu ba politique nag bu ñuy def léegoo loolu doo doxalee noonu ak sa responsable doo doxalee noonu ak sa jigéen doo doxalee noonu ak sa am di jàmm loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa koo wax ndax moom ci boppam xam na ne fukki at muñ naa ko mu ci am ay injustice yoo xam ne yi ah ñëpp fekkee na ba mañ may jógee primature bi ma wax noo gagné woo grand waaye dama naa ne ngi koy ñaanal waaye à chaque fois Mimi Touré moom cas spécial lay waaye ñu muñ ko rek ndax li la tax a jóg ak li taxoon ñu jàppale ko mooy Sénégal mu am lu mu ci liggéey nag loolu moom du ko ko mos a dégg waaye yu metti lay doon ndax xol lu ay óom ba nga koy bës lu metti lay doon waaye bu la sa dëkk taxee jóg nga jàpp ne war ngaa indi sa contribution ndax nag koy seet New York moo gën a amee moo gën a bakkane moo taw fii journaliste yi duñ fa nekk di la mettre à la une mel noonu waaye loolu yëpp dañ koy muñ dal di ne suma réew dama war a ñëw indi ci suma expérience may woon nag sax cadre yi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñu continuer koo def waaye nag na seen xol yi dëgër bu baax baax kon la xewoon yëpp injustice yooyu yàgg naa am ba may jógee conseil économique social fekkee ngeen ko kama wutu moom jarul ma leen di nettali diggante ya ndax dama jàppoon ne comme ancien premier amee tolof tolof ak président ba nga xam ne mooy sama président de parti man nuy am niveau premier ministre man maa ko war a aw waaye noonu it ku téléphone man daal defe naa ne xool naa ko ba xool waaye dama koy indi nga jóg moom mu toog waaw am ñu naan sax waaw yow yooyu yëpp yow est-ce que amuloo li tubaab naan naïveté mm-hmm. ma ne leen noonu du naïveté ndax nit ki boo jëlee choix naan choix de vie maanaam nga jàpp ne man daal nii laa bëgg dundee nii laa bëgg a indee contribution ci suma àddina yooyu bu ñëwee da nga koy muñ da koy encaisser ndax Sénégal ngay teg ci kanam ndax nag alhamdulilah rabil alamin bu la yàlla ubbi lay war sa war ngaa jàpp ne ci wërsëg woowu ak ci xam-xam ba ak ci expérience bi war nga koo delloo su réew ci jàpp jàppale ci nga xam ne mooy liggéey te Sénégalais yi teg ko fi te loolu it awma ci benn lu may regretté kooku it bëgg naa ñu xam ko bu ko defee ñu xam bu baax ne ne lu metti lay doon dangay ngay say xarit say am di jàmm say mbokk say àndandoo ndax xëy na yow la nga cay mën a mën ñoom duñu ko ca mën a muñ te dara taxul nag souffrance boobu ñu koy am ci lu dul rek doon sa soppe sa ànd say àndandoo ak yu ni mel kon ñoom it maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax ah di leen sant ci jàppale bi moo wax naa fi ay proposition pour liggéey bitim réew yu dul jeex te président Macky Sall woon naa ko ba tey offrir nañ ma ay poste Nations Unies yu kawe ba ca mujj un mois avant élection législative danañ ko jottali waxtaan bi moom xam na ne wax naa ko ko ne ko nag man li may jàpp ak li may choisir mooy jàppale la mu ne vous avez fait le bon choix un mois avant les élections législatives te jàpp naa ne j'ai fait le bon choix ndax toog naa sama réew continuer di ko liggéeyal li ma bëgg nag euh, mesdames messieurs les journalistes ngeen comprendre mooy waxtaan wi du affaire wu poste du affaire wu privilège maanaam tawféex bu doon loolu rek kon du toog fii di waxtaan ak yéen ndax ca diggante bi nag moom ci boppam yónnee na ma ndaw yu dul jeex def ma ay proposition yoo xam ne lu ma ko fii bu doon tawféex rek ak privilège ak poste kon ma jël privilège yeeg poste yooyu ndax poste sax moom boo koy tudd ma fàttali ne man fonctionnaire international la woon ni ko si dibaara fàttali sant nekk New York jiite fa ak département di jëflante ak ministre yi nga xam ne ñoo ne ci àddina bi yëpp ak kilifa yi waaye man maa jël contact ak président Macky Sall xool profil yi. ne kii kat defe naa ne war naa mën a yor Sénégal ànd ak moom booba defe naa ne amul fonction géologue la waaye fonction moom boo xam ne bii amoon na ko amu ko woon donc amuloon lu mu jox donc ànd ñu woon ak moom ndaxi poste defe naa ne euh, loolu euh, lu leer ndax amutoon poste bu mu joxe ma àndoon ci nag ak ñeneen ndeysaan ma sama xel dem ci Alioune Badara Cissé bi nga xam ne jóge na fi il y a un an ñaan yàlla xaare ko àjjana ku bëgg réewam la woon ku am taxawaay la woon moom it waaye sama xel dem aussi ci junniy junniy junniy militant wu APR yi ak responsable yi nga xam ne 2012 dañ jógoon taxawu waaye tey ñu ngi naan waa ñun kon sunu engagement boobu pour lan la woon ndax li ci yëpp. dañu jël ñi nga xam ne ñoom lañ doon xeexal teg leen ci seen kaw ñu leen di romb yor seen i teranga bàyyi man dama jàpp ne jot na nag bu nuy politique ñu dugal ci li ñu naan ay valeur ak ñu dugal ci man dama jàpp ne politique du rek njuy jaaj wax la génn ci du ma jiital suma mbokk bàyyi ki nga xam ne moo mérité du habit de confiance dama jàpp ne dañ cee war a boole aussi des valeurs sàmm kàddu yi ak respecter suñu constitution ak suñu loi loolu la moo may may ma jàdd ci li nga xam ne mooy aadi kala ji wolof nee na lu yëngu